jërëjëf loolu leer na kii day laaj ci maanaam laay bii sunu borom di wax yasalunaka an alxamri wal maysiri qul fihima ithmun kabiru wa manafiu linnaas wa ithmuhuma akbaru min nafihima loolu tam mooy njëlbeenub laaya ñaar téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ci saaru albaqara yàlla dafay wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nit ñi danañ lay laaj danañ lay laaj mbirum sàngara ak kart mbirum sàngara ak carte danañ la koy laaj wala ñi ngi la koy laaj ñi ngi la koy laaj waaye na leen tontu ne yaar yooyu bàkka bàkkaar bu mag a ngi ci bàkkaar bu mag mi ngi ci ñoom ñaar nit ñi it am nañ ciy njariñ nit ñi it am nañ ci ay njariñ loolu dafa dugg ci biir doxin yu alxuraan doxe ci bi muy tere sàngara ak kart dafa am doxin wu ci doxe ñëwul wenn yoon rek ne sàngara araam na carte araam na ñëwul rek ñëwul wenn yoon rek daan koy waxe noonu mu jeex loolu doxin la wu yàlla di doxe ci yi muy digle yenn yi ak yi muy tere yenn yi yenn yi mooy am na yooyu xëy digle ndoo ko benn yoon rek ca nam mate bu ñu ko defee mën naa jafe mën naa jafe mën naa jafee def lu mel noonu nag bu ko yàllay diglee da koy def ndànk-ndànk da ciy digle tuuti di ko yokk di ko yokk di ko yokk ba mu àgg canam mate bu dee lu muy terale it te doon loo xam ne bu ñëwee wenn yoon rek ne bàyyi leen nangam dana jafe boobaa itam day day day day woo nit ñi ndànk-ndànk ñu di ko woyofal di ko woyofal ndànk-ndànk di ko woyofal ndànk-ndànk ba bu àggee ci ne leen bàyyi leen ko dana fekk ñu man ko noonu la def ci sàngara ak carte bu koy def it day fekk mu doon loo xam ne dafa dëgër lool ci nit ñi ba bokk ci seeni aada nga xam day mel daa bokk ci seenu dund lu dëgëre noonu ci nit ñi boo ñëwee benn bis neen bàyyi leen ko noonu rek mën naa jafe waaye day am fu muy jaar ak ñoom bañ ci xalaatal seen bopp di ci xalaatal seen bopp di ko woyofal di ci xalaatal seen bopp di ko woyofal ba bu àggee ci neen bàyyi leen ko rek dana fekk ñu man ko sàngara ak carte noonu la ci doxe gis nga fii noonu la waxe ñaar yooyu bàkkaar bu mag a ngi ci waaye ay njariñ ci gis nga waxin ni mu wute bàkkaar dana bu mag njariñ yi nag dana ay njariñ rek waxul yu mag ñi am xel dañ ne ah loo xam ne moom bàkkaar mag mi ngi ci waaye ay njariñ ci rek loolu daal xam naa taxul mu gën am na ñu wax loolu ci saaba yi am ñu wax loolu mën naa tax ñu bàyyil ko seen bopp wala ñu woowee faral ko seen bopp ñoom ba mu ba ca kanam la waxaat jeneen laay joo xam ne dana leen bu leen di julli fekk ngeen màndi araamalu ko de waaye nag bu leen di julli fekk ngeen màndi laa taqrabu salaata wa antum sukaara xataa taalamu ma taquluun te bi mu koy wax it aw ab xew-xew moo am ndax araamalu ko saxaaba yi da cee am ku ku ku ku woowoon ku woowoon ay xaritam këram bernde berndeel leen sàngara si ci la bokk biñ naa ne tàgguk seen sago julli jot ñu jiital kenn mu jaxase mu jaxase jaxase gu doy waar sax qul yaa ayyuhal kaafiruun laa a'budu maa ta'buduun wala antum a'buduuna maa a'bud moom mu ne na'budu maa ta'buduun nga xam ne maanaam da ko safaan bi jàllee ci la laa jooju wàcc bu leen di bu ngeen man bu leen di julli fekk ngeen màndi ci gën cee xalaataat ah waaw ginnaaw julli juróom yoon lañ koy def ci bis bi ba noppi wërta fekk nu màndi ah kon de kon mënut a ñàkk ñu ñu wàññi ñu wàññi kon naan gi danañ ko danañ ko wàññi da nga fexe moom ba bu tusbaar du jot du fekk nga màndi bu takkusaan du jot du fekk nga màndi bu timis jot ndax tere nañ la moom ngay julli fekk nga màndi ba tey neewuñ la sàngara araam na waaye ya ñu ñu ñu ngi la koy wooye falal yow yaa ngi koy war sa bopp di ko xalaata sa bopp di ci laajal sa bopp saxaaba yi ñoo doon laajal seen bopp ku mel naa Omar ba léegi daal ba léegi daal ba léegi daal man amaguma ci lu ma doy noonu lu doon taxaw yonent bi sallallahu alayhi ba ci mujj gi nag yàlla nag léegi nag bàyyi leen ko bàyyi leen ko إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ما نك لم تمج وخ لأنك لك باي لنك بمنان باي لنك فكنا مجارك نيوم جاروا ييبا ويفنت نيوم ما نك بمنا فهل أنتم منتهون ndax da ngeen ko bàyyi ñoom ñëpp dañ ne bàyyi nañ bu ko waxoon duñ ko mëne noonu laay ji jamono ji muy wàcc bu ne woon bàyyi leen ko du yombe noonu ci ñoom waaye fi mu jaar ak ñoom ba àgg ci ba mu ne leen bàyyi leen ko dañ dañu wax rek ne bàyyi nañ ko ña nga xam ne sax fekkoon na leen ñu teg seeni seeni paan wala seeni seeni seeni bërigo sax di naan bi amee ñu ñëw ne leen ah ay sàngam wàcc ne jàngal leen ko ba mu ko jàngalee dañu daal tuur dañu daal di tuur lañu la fa nekkoon ca saas kon fi jaar ak ñoom moo tax ba bi bàyyi leen ko ak rek daa fekk ñu mën koo bàyyi lii kon dañ ci jàngaale dox doxalinu alxuraanu karim mooy doxalinu yàlla li ñu doxaleek nit ñi bu leen dee digal loo xam ne digal leen ko benn yoon rek dana jafe ci ñoom mu koy def ndànk-ndànk loo xam ne tere leen ko benn yoon rek dana jafe ci ñoom mu leen koy woowee falal ba muy àgg ci ne leen bàyyi leen ko kon lii foofu la dugg ab tolluwaay la ci tolluwaay yi nga xam ne yàlla da ci doon xalaatloo nit ñi ci sàngara ak carte bañ xam ne euh, amul solo waaye nag taxutoon mu àgg ci neneen araam na la dugg kon ay bàkkaar bu magan ci waaye njariñ nit ñi am nañ ci njariñ foofu rek la yam ginnaaw ne araam na bàyyi leen ko ñoom jërëjëf loolu kii day laaj mu ne sóoratul baqara ban saar moo wàcc ginnaawam ak ban saar moo ko jiitu ci wàcc gi ban saar moo ko njëkk wàcc ak ban saar moo wàcc ci ginnaawam mhm. waa bi euh, saar wi jiitu albaqara mooy almutaffifun sóoratul mutaffifiin sóoratul mutaffifiin dañ ne moo mujj a wàcce màkka saar yu mujj a wàcce màkka mooy almutafifiin yu njëkk a wàcce madina mooy albaqara kon ñoom ñaar ñoo toftaloo albaqara itam wi ci topp mooy al anfaal suuratul anfaal bu dee laaj bi kon ñetti saar yooyu noonu lañ toftaloo almutafifiin moom mujj a wàcce màkka albaqara njëkk a wàcce madina al anfaal topp kii de laaj mu ne ki nga xam ne day yëngu ci wàllu football day football ndax ci biir weeru koor gi bu fekkee lott na ci boole koor gi ak football bi dana sañ a dog ndax kooku dañ ko may mu dog ngir mën la boole woor ba noppi di tàggat yaramam ci anam googu <coughs> am na loo xam ne boroom xam-xam yi wax nañ ko mooy ku am ab liggéey liggéey boo xam ne ci lay suturloo moom la man te diis na diisaay bopp mënu koo boole ak woor may nañ ko mu bañ a woor bu fekkee ngàntal dana teggiku bu teggi ko mu fay waaye nag day doon liggéey bu dagan liggéey bu dagan boo xam ne moom la man te mën ko boole koor ndax diisaay ndax football dana ci dugg boobu dañuy xool ndax football ci boppam dagan na wala déet ndax football dagan wala déet football li koy tax a dagan man naa dagan man naa dagan ndax jëmmi football rek rek rek buñ ko génnee ndax bu ñu jox àtte mbir mooy dañuy seet cosaan la rek lépp loo xam da caa ànd waaye da caa ànd rek waaye bokkut ak mbir ma ñu bañ ko cee dugal cosaanul football mooy lan mooy li wolof daan wax wéq bal topp cee nag nangi loolu mooy football wéq nag nangi mooy jël ab bal boo xam ne léeg-léeg nga dóore ko sa tànk léegi léeg nga doore ko sa bopp léeg nga teg ko ci sa dënn léeg-léeg nga teg ko ci sa wóom léeg loolu mooy football jëmmi loolu ci boppam nag aayut jëmmi loolu aayut leneen lu cay ànd nag mën naa tax mu aay waaye loolu lu ci ànd la kon ku mënoon a fexe ba lenn lu aay bañ caa ànd kon football du doon lu du doon lu lu araam bu doon ne ya cay ànd ci yu aay bokk na ci bañ muur awra ku fexoon ba koy def waaye mi ngi muur am kon am na lenn lu aay loo xam ne fexe na ba bokku ci lu aay mooy dox digganteem ak jaamu yàlla di ko def waxtu woo xam ne mel ni julli jot na nga bañ nga bañ nga nekk ca bañ julli ci ku mënoon fexe ba loola du ca am ba tey dindi na loo xam ne lu aay lu ci mënoon a ànd la kon mën nañ mën nañ ko tàqaleeg yu aay yi buñ ko tàqale woon ak yu aay yi kon du aay kon du aay xaw ma nag waaye ku fexe ba tàqale koog yu daal du aay kon jëmmi football rek aayut waaye ya àndal mooy mën a tax mu aay bu ànd moom ba aay nag du mën a doon liggéey bu dagan bu ca ya ya koy tax mu aay àndee du nekk liggéey bu dagan buy may nit ki mu bañ a woor bu fekkoon nit ki fexee nag ba yey tax mu ay àndu ca kon mën naa doon lu dagan te bu ko doonee te moom la man duñ ko waxe moom la man mënut leneen man nees na koo may bu jàllee bu ngànt la teggi ko mu fay waaye nag jafe na ci ni muy amee ci àddina ne nii nii nii moom jafe naa jàppee ne aayut jafe na jàppe ne ayut